Sam bu xaratul mubaaraka nekk benn quartier yi nga xam ne rek moo nekk ci dëkk bu sell bii di Touba Serigne Saliou Mbacke moo ko sancoon file nag benn bureau boo xam ne rek dañu ko fay samp lu jëm ci wàllug état civil beeg yu ni mel dend ak post de santé bi nekkee file loole itam nekk loo xam ne mën naa yombal askan wi yeewoo file ci jafe-jafe yi nga xam ne dañu ko doon jànkonteel ci wàllu kayit ak yu ni mel Serigne Saliou Dieng chef de village bi di kat taarixu yi lee sanc ak ni nga xam ne noonu la ko Serigne Saliou doxalee woon ne xàggee mu ne ko saari wi muy kat da doon liggéey ci kër sëriñ tubaay am lu ñu ko dénkan te sëriñ saari dénkan ko ba mu jógee laaj baar dénk ko tey jii maanaam mu ne ko indi laat mu ne ko ne téye na mu ko téye woon tey lañ ci gën a wóoru kon ñooñu ñëpp lañuy maas sant ndax ñun soxla woon lu may liggéey sëriñ tubaa te bu ñu fee nekk def lu dul liggéey Sëriñ Tuubaa rek yàlla nañ fi jóg foofu kooku cant foofu lañ koy jaare gannaaw loolee kàddu yoo xam ne itam yëkkati na ko jëmale ci ñenn ñoo xam ne dañu doon yëkkati kàddu yu dul noonu di ko lal ci ndoddam leeral na ne jamono ji lu jëm foofee di sàmm bu xawatul mubaarak googaleek liggéey anam gu jaar yoon la sëñ Saliou ma waay man wax yàqu ndax li may def tamit kilifa ma naa ne am ñu dem ba gis nañ mun matu ko waay matu ko matu ko matu ko lu jaaxal waay ni yow laaj ma te mun taqaa man am na ci loo xaay loo xay gars yi teetaal leen seen nan teetaatul bopp nan fat yéen doon ay taalibe am loo xay teguwul fenn sëñ tubaa nag dëkkam bii yëkkati ko doy maanaam wóolu ko dénk ko ko ko doy la war ku doy la war sëñ tubaa bu dee xool ci kañ ko dégg nañu xool kañ ko dégg bu dee ko xool xool leen ne ka ko ko dégg danañ xam ne ko dégg ku la tey du dégg ku mat mu dimbali loolu dimbali leen loolu kay kon nanu góorgóorlu ak jàpp la ma tey laa gën wax damaa am taw fii bu xat mu baaree ko seen daaw dégg ko mu ëpp ci te damay ñaan doy si leen jëm baal tey jii bu suñu borom waxoon tey jii ni yaar lenn len da ci mën a ñàkk bu xottu baa da ko jekk xam na maa dee bu xottu baa da ko ku dëkk bu xottu baa rek na nga teere ni war a naa ko jéem ànd ñuy wax nañu seet li ñuy wax te xam ne saa riw mii dañ ci gaaño waaye mënuñ ci moom tus dégg nga léegi bii Saliou Dieng moomu comme ni ko Moussa Seck waxee yeneen yi wax gërul ma ci jàll ak sant nañu ko gis naa jëm Cheikh Dieng buñ nangoon parents yi jii suba da ngeen ma fi gis mën naa ko waat nag weex taat tax dem jàng ndax maanaam lii li muy rëy rëy rëy ak li muy baax baax fàttewu ma démb de ko dem sama dëkk bàyyi defar naa ko war na ma ko war defee dafa bàyyi dama war a béy sama njaboot yëpp ñun jaaxlewuñu jàppuñu te am nañ ndigalu Sëriñ Tuubaa te am nañ taw bi Sëriñ sëñ Muntaxa man liggéey ci moom la ma ko wax mooy day di ma sëñ Sénégal wax day la ma wax sëñ Sénégal laa wax liggéey bi ma ci yàq doon ci yàq mu ne ma doo ci yàq doo ci yàq dañ koy tafe tafe tafeex sëriñ Tuubaa ku féete fu ko ko féetut ku mën a doon pett na sëñ Muntaxa moo wax loolu kon gars yi ngeen teey te xam li ngeen am ah kon te préfet foofu rek dañuy yem man fii moom ma ko yéen yéen a ko moom te bi ñu koy programme sëñ Saliou na ko déy ko déy nga plan bii bi ñu def dañu ci kenn nekk def nga Moussa Seck ngi damaa plan rek joxe di sëñ man xam na ne noonu dana am sëriñ Saliou te gis naa ci Cheikh bi lañ bëri bëri def ko defee rek ndigal sëñ Saliou ci gàttal nga jàpp bu ngelaw bare ginaar saako na gaa yi ngeen bàyyi ma xel bàyyi dem fii man moom ma ko su préfet yéen yéen a ko ah su préfet xam naa dafa naaj xam naa li nga xëy daal moom li ma war a lépp Moustapha Seck wax na ko kon dëggal la xam naa daal ñoo ñu tax ñaa nan pee waaw kooku moom boo ci mën a jàppale muy xeetu jikko yi da da dana doon taw waaw ñu ngi lay ñaanal suñu borom suñu daal tey la wak sab jon bal fa akkatu bu xatu baraka maa ngi ñaan sant ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp maa ngi ñaan ñëpp seen aajo aaj faju saay rek baj jërë ngeen jëf nga ma ñëpp balaax ban naa ñëpp àq nga ma ñëpp balaax yi laa dund di wax jërëjëf milem ndaje nag mi ngi doon am ci teewaayu adjoint bu sous-préfet Mansour ñu koy wax Ibrahima Sall ginnaaw nag ndaje mi nga xam ne rek ñëwoon na ci visite bi nga xam ne doon na ko amal gëlëg liggéey kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko daal di koy jëmale ca googaleeg fànn jàpp ne nag jamono ji jafe-jafe yi nga xam ne askan wi dëkkee ci gox bi le di Sam Bokhatul Moubarak liggéeyu chef de village boobee di Baye Saliou Dieng bokk na ci li nga xam ne mën naa yombal lu jëm ci wàllu këyitu juddi ak jafe yi nga xam ne dañ ko ci doon jànkonteel mu ndax ku ne xam na ne commune ba sori na ku ne xam na ne yenn post de santé yu ci bari amuñu département état civil j'en profite pour saluer l'infirmier chef de poste bi ñu ne mi ngi fi monsieur Sylla maa ngi koy nuyu ñoom it ñu ngeen war a bàyyi xel lañ ndax ñu sonn lañ ci askan kon lii fii Serigne Saliou Dieng mii def muy vision ndax sëriñ Saliou ku amoon vision la lii mu fi tracé wane ko ci ay plan man de ginnaaw xulul xaq wala kaana muran la ñu wax man chef de quartier village bu def lii sëriñ Saliou Dieng def ci Sénégal maa ngi koy door a gis man